farata la sëñ Abdu nee na dañ julli wasifa fajar ba nopp mu ne Seydul Xaaji Malik ne leen dem leen ca kër gouverneur may naa leen ko te wallaahi xam naa daf ko ñett waaye boobu ku amoon fit jóg dem di nga jël kër gouverneur ndax wali la boo xam ne lu mu wax yàlla def ko xamu fu gouverneur jëm bon waaye di nga moom kër gi waaye daf koy wax ba pare ñàkk ko kenn du ko mën wali bu ne ku mën nangam rek xamal ne ñàkk na ko ba pare door koo wax ku ko mënoon sax dootoo ko mën mhm. da ngeen foog ne ñoom dañuy wax nii rek kese kese déedéet bu ne ku mën nangam fekk ñag na ko balaa mu koy wax boo ko mënoon sax dootoo ko mën vérifié na ko bu yàgg waaw ah waaw bu la ne ku mën nangam boo ko mënoon sax doo ko doo ko mënati mu ne dem leen kër gouverneur may naa leen ko mu ne ñëpp toog mu ne laay wax pare nañ ci wasifa bi dem leen kër gouverneur may naa leen ko ñëpp ne patt mu waxaat ko ñetti yoon ñëpp ne patt mu ne alhamdulilahi rabbil alamin Malick de fii la nekk ci àddina bi gouverneur nekk fii ci àddina bi yee woon ndar yee woon ndar gouverneur jóge ca tugal ñëw fii ci senegal am fi cër bu fi Malick amoon man Malick ma may leen kër gouverneur ñemewu leen dem jël ko wa kay fa naka la leen Malick di mayee kër goo xam ne simaam demu fa bétoom demu fa suufam demu fa feeram demu fa dem leen jaamu ji yàlla te bàyyi caaxaan ku bëgg àjjana jaamu jil yàlla nee na keroog lii la Seydul Haaji Malick wax Malick gàddulut kenn àjjana xamul sax àjjanaay boppam ndax wóor na ko mu ne toog ba yàgg ne céy Malick ak ñetti fanu bàmmeel te Alaaji Abdu nee mësul jóg Seydi sëñ Cheikhul Hadj Abdou Aziz nee na Seydul Hadj Malick mësul jóg dee daan toog ba mu yàgg mu ne est mu ne bu bindee rek mujj gi euh, góor gi ma yoro sàll mu baax ma le di bàyyi sëriñ Abbas Sàll moo ko daan wax ne góor gi ma yoro sàll moo tuddee Seydul Xaaji Malik Maodo moo ko tuddee it xaw mi aw wala boog Seydul xawmi ñaar yépp moo ko ko tuddee ndax soppoon Seydul Xaaji Malik ak nekk taalibeem yàlla dogal moom góor gi ni meloon ci Maodo mooy ni Cheikh Mohamed al Ghali nekkoon ci na Tijaani laaj yu bari moo ko daan laaj Seydul Haaji Malik ndax Maodo hayba bi da daan yegg foo xam ne kenn du ko ñeme boo ko nee jàkk rek loo bëggoon wax sax fàtte ko Cheikhuna Tijaani daf ko daloon ba mujj gi mu décrété ne bu ma kenn laajati ku dut Cheikh moom al Ghali ndax yéen su ngeen ma laajee seen laaj ya doonte dagat na mën ngeen ci alko mu ne ba mu des Cheikh Mohamed al Ghali ndax shérif la te yegg na ci martaba laaj ma ma tontu moo tax ba mu ba mu wéeroo ca ngegenaayam ya ne xadamay yahaatay ya ala raqabati kulli waliyin min ladun aadama ila nafxati fi suuri te booba mu nga jaaxaan ca ngegenaay ba sowandu nii benn benn coñcoom teglante tànk yi sowandu ci ngegenaay yooyu Cheikhul Hadj Abdou Aziz donn na ko ci moom moom moom nga gis ngegenaay yi mu daan toog ñu ko koy tegal ci ginnaaw ba mu ko waxee ba noppi Cheikh Mohammadul Ghali ne ko a anta fi sha'nin loolu la ko njëkk a wax a anta fi sha'nin ndax màndiwoo màndik leerug yàlla tax muy wax wali yi dañuy nuur ci leerug yàlla gi ba màndi di wax loo xam ne boo leen ko laajee ñu ne est-ce que maa ko waxoon Cheikhu da tiijaan ni jóg toog defaruwaat ba jekk xool ko jàkk ne ko fa lillahi alhamd wa shukr ñaar yépp la boole alhamd yàlla la ko delloo shukr ñoom ñoo ko moom <laughs> fa lillahi alhamd maa ngi sant yàlla mi ma may loolu wa shukr ak boole gi ma boole gi yéen ba ngeen ñeme ma pour laaj ma loolu mu ne ko màndiwuma ci leeru yàlla yi mu ne ko lii nga wax cheikh Mamadul Xaali ma ko wax de mu ne ko lii nga wax sa maam cheikh Abdul Qadir Jeylaani daf ko waxoon te cheikh Abdul Qadir Jeylaani digganteem ak Cheikhuna Tijaani xam nga ñaata at la 600 ans juróom benn téeméeri at cheikh mo cheikh Abdul Qadir Jeylaani judd na fi woote fi ba faatu ba am juróom benn téeméeri at Cheikhuna Tijaani door a judd waxuma la woote de waxuma la jàng door juddu bi mu amee 600 ans ci biir suuf moom Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ci la na Tidiane yi door a gane àddina te xoolal ku ne Qadir ne tiijaan mu mel ni ñoo maase waaye ñoo maase ca Xasan ak Xuseynu mooy li mu wax léegi xasana joxoon na cheikhuna tijaani xuseyni jox cheikh abdul qadir jeylaani moo tax boo ne tijaan ne mu xaadir mu mel ni ñoo mu ne ko sama maam ab ah, Cheikh Abdul Qadir Jeylaani benn tànkam la waxoon ca ñam bokkal jamono la waxoon mu ne ko man sama ñaari tànk yii laa wax dalee ca maam aadama laa wax ba bufta di wal ku fi jaar di wali rek sama tànk yaa ngi ci sa kaw loos bàyyiwu ko de Cheikh Abdul laa ni bàyyiwu ko de daayiru xam nga lu mu ko wax mu ne ko lu koy dëggal <laughs> ndax danga fii jóg ëllëg mu ne ko li nga wax nii lu koy dëggal mu ne ko danga fii jóg ëllëg moo tax mu ne ko ma wax la li koy dëggal mu ne ko ñun ñëpp loolu lañuy ñuy déglu mu ne ko nii ma ko wootee ba wax ko kenn dootu ko wax ba yowmal xiyam mu ne ko ndax li la yàlla may dafa jeex mu ne ko jeexut Cheikh na Tijaani delloo ko laaj bi ne ko ndax li yàlla may rasulullaay dafa jeex mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mayeti na ci kenn mu ne ko déedéet mu ne ko waa ana hakaza lii mu ma defal defal na ma ko te dootu ko defal kenn ila yawmil xiyaamati mu ne ko bu keneen ñëwee woote ko mu ne maqaam la boo xam ne ku ko wootee faatu te gaa yi bëgguñ faatu nag yàlla na nga gars yi moom lu wax ji rëy rëy rëy dee rek lañuy waate waatee ah, ndax boo amee jongama yu rafet yor kaat kaat bu rafet am kër gu nice climatiseur bi di daw taalibe yi di la upp ngay lekk njoñ ganaar yu njoñ di muut banaana waaye doo bëggee gaaw a dem bàmmeel wala déet ah te sëriñ si ci loolu rek lañuy dund ñi ci ëpp boog laa wax moo tax duñ ko woote mukk boo koy woote rek ñàkk banaana te gaa yi bëggu ñàkk te banaana ah waaw nga ne pat moom te dafa neexee na wooteel lu la neex waaye boobu moom boo ko wootee moo xat miya ak kat miya Seydina Cheikh nee na ñàkk naa ko ku ko woote faatu te balaa ngaa faatu nekk yéefar ah, waaw ñii yii kañ moom assuré Seydina Cheikh nee na assuré naa ko ñag naa ko ñu ne ko ban mu ne xutbul fardul jaami ci sama tariqa lay génnee ila yowmil ndax sama maam moo ko ku bokkul ci sama tariqa dootoo ko nekk mu ne keroog bi ma ko nekkee man Cheikhuna Tijaani ba wàcc maqam jox ko euh, euh, Aliou Haradim Barada keroog la yonent bi décrété ne ku koy jëlati relève bi relève bi ku koy jëlati ci tarixa tiijaan ngay bokk ba pare shérif ngay doon xasan ngay doon yii moom mënta ñàkk foog nga nekk shérif nekk xasan bokk ci tarixa tiijaaniya wa illaa doo nekk xutbul fardul jaami mën nga bokk nag ci yeneen aqtaab yi siis yi ci des ak mafaatiwul kunuus yeeg secondaire yi mooy ministre conseiller yi yooyu mën nga ci bokk waaw waaye bii moom tariixa bi rek a moom muy benn ñu ne ko ak ban mu ne xat miya kat mi man rek maa ko jago keneen bokkut ñu ne ko ak ban mu ne bii ma wax xadama yaxaataya man rek maa ko jago ñu ne ko ak ban mu ne fii may tëdd ëllëg waxuma kañ fay rob de ku fa rob nit yow mi ko fa rob di nga dem jahannam <laughs> Seydina Cheikh bokk ci de te ba muy dund la ko wax ne ne fa may tëdd ëllëg man muy sama bàmmeel kuñ fa rob mu ne waxuma kañ rob de waaye ka ña ko fa rob ñépp jahannama lañ jëm ñu ne ko ah te yonent bi Seydina Abubakar a ngi ci wetam Seydina Omar a ngi ci wetam yow nga ne kuñ rob ci sa wet ka waxut moom mañ fa rob waaye ka ko fa rob ña ko fa rob sax safara lañ jëm mu ne ko kële rahmatan lil aalamiina la man xusuusi yàlla ngir samay taalibe mu ne te duma tëddandoor samay taalibe ci benn barab ndax xajuñ ci sama wet dama leen di écraser kële rahmatan lil aalamiina la <laughs> bari na koy wax te doo dégg mu firil la lu tax yaa ngi koy delloo ca la sëriñ Cheikh waxoon ba doomam génne àddina soxna aasi bi mayoon lamin Diack yal na ko génnee ci xat-xat yi mu nekk nii yal na ko ci yàlla génne waaye yal na ko ci yàlla génnee yal na ko ci yàlla génnee xat-xat yi ay tooñ rek la yal na ko ci yàlla génnee fa tabaarakallaahu moo tax Cheikh Sidi Ahmed Tidiane <laughs> radiallahu taala anhu doon nu yonent yàlla yuusuf doon nu yonent yàlla ibrahim doon lu ñépp fa tabaarakallaahu moo tax mu ne fii ma tëdd kuñ fi rob waxuma kañ fi rob de ka ko fa rob ak ña ko fa rob ñépp safara lañ jëm moo tax doo gis kenn ku tëdd ndoor moom ca zawiyam gaa yi rog ko suwuñ sax ba def ko ndax bàttalee na ko ku ko def dootoo ko dolli waxuma kañ fa rob moom kooku moom yal ko yàlla yërëm waaye ña ko fa rob sax la wax ña ko fa rob nee na ñoom ñépp jahannama lañ jëm xat mi yebee tax nanguwul dendook moom hmm, kat tax nanguwul dendoo dinga ma ne kon yonent bi Seydina Abubakar ma ca wetam Seydina Omar ma ca wetam ñooñu saxaaba lañ teg yonent bi bët te ñun kenn tegu ci yonent bi bët ànd ak yonent bi nasaruhu wa waqaruhu dimbale ko ba ànd ak moom tëdd foofa looloo tax ñu am maqaama yi tëdd ci wetu yonent bi te ñaar lañ weesu wuñ ko Seydina Abubakar Seydina Omar ñooy ñaari ponkal yi nga xam ne bu du toon yonent bi di ñoom su du loon yonent bi rek di Seydina Abubakar bu du loon yonent bi rek di Seydina Omar moo tax yonent bi ne alxaqu maa omar xaysu daar nee na omar soxlaatul dëgg dëgg koy topp fu mu nekk rek mu fekk ko fa ne ko sama xarit nga ndax dëggu dafa dëggu ba dëggu di ko wër fa tabaarakallaahu kon kooku may Cheikh Seydi Ahmad Tidiane hmm? du loolu lañ doon wax waaw moo tax xatmiya chance lañu am ak xatmiya bokk ci tarixam moo moom Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yal na yàlla taas ñu ci barkeem yal ñu yàlla def dëgg-dëgg tiijaan yal nañu yàlla tënk ci kër Cheikhul Xaaji Malik ñu nekk ay taalibe ila yawmi yubaasuuna yal na yàlla tàggat teraanga ak sutura ak xéewal ak wërsëg ak wér ak wérle ak mucc ak muccle sëmbartal ko ci suñu kaw ba ku ñu gis sax wér ku ñu gis mucc ku ñu gis muccle ku ñu gis am kum gis am yal na ko yàlla def yal na yàlla yéeg ne ca suñuy daraja yu tuuti yu gàtt yi naaw ak moom ba mu tolloog darajaay yonent ya mu teg ko fa nañu néew ngeen kàttan lool sax amu leen solo mënu leen jaamu yàlla waaye dama leen ñewent man yàlla mi leen bind dama leen ñewent moo tax ma jël seeni jëf teg ko fii ma tegal yonent yi seeni jëf yal ko yàlla defee noonu ba bu ëllëgee ña yonent bi di tiitaroo yal nañ ca bokk ña tiijaan yi di tiitaroo yal nañ ca bokk ña Cheikhul Xaaji Malik di tiitaroo ak Cheikh Alxaaji Omar al Fuuti yal nañ ca bokk te incha allah bu lii dakkul rek ñu bokk ca te incha am nañ yaakaar ne lii du dakk ndax lii neex na neex goo xam ne bu dakkee di nga wéet ah, bu dakkoon dangay mel ni ku dof mook tuxatu yàmbaa ñoo yem naa la ko wax bu amul yàmbaa rek day dof mën na jaay léegi mbubb muy jar cent mille mu jaayee ko cinquante mille waaw ndax bëgg a muqi rek waaw ni yàmbaa di dof nit noonu la jaamu yàlla di dofloo nit waaye ci sens bu baax bi dangay dem ba boo ko defut da ngay mel nit dafa am lu manqué ci yow dangay ngay yëg vide vide bu rëy ngay yëg ci yow te doo am jàmm fekk rempliroo ko loolu jàmm yàlla rek ko mën leneen mënu ko lekk mënu ko naan mënu ko nelaw mënu ko da ngay dem ba yëg ne danga am lu vidd loolu vidd nag fekk defoo ko doo am jàmm bu dee julli boo ko defut doo am jàmm ci ngay feex sax bu dee laazim boo ko defut doo am jàmm lu mu mën a doon kon yal nañu yàlla saxal ci lii saxal ci suñu njaboot saxal ci suñuy doom saxal ci suñuy sët ak suñuy sëtaat bañ dekki ànd ak suñuy kilifa ba gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah bu keroogee dina neex de waaw dina neex de nañ góorgóorlu rek waaw ah, te balaa ñoo dem sax fii lañ koy gisee ba pare laa dem gis yonant bi yaqazatan laa manaama jàkk la koy gis door a faatu gis palaasam ca ajjana door a dem garanti la ci tarixa bi Cheikh Seydi Ahmed Tidiane nee na maa ko garanti sama taalibe nee na sama taalibe ala kulli xaal balaa dem dina gis palaasam ci ajjana rasulullah koy jël si ak i saxaabaam loolu moo am de waaw yonent bee lay jël si ak i saxaabam léeg nag mu délégué ki nga bëggoon yow waaw boo soppee sëñ Babacar si ba sopp ko dafa naan Seyd Aboubacar dama jëlee li ma sa taalibe bële bu la sëñ Babacar jël see ba noppi nag teg la ci loxo ndax day xam ne yow sa cofeel ci sëñ Babacar si la nekk waaye soppoo sëñ baabakër moom nga sopp da nga ko jaarale ci sëñ Babacar. comme moom xam na ne sëñ baabakar moom rek la sopp mu ne Seydi Aboubacar demal jëlal ma sa ba bële su ko jëlee ba noppi teg ko ci roxol rasulullah rasulullah delloo ko ko ne ko berndeel ko ba noppi mu dugal la ci barzaqam moom Seydi Aboubacar won la ruq yi di la berndeel mën nga fa yàgg ba bés peñ ci taxaw te doo yëg ne jeex na mooy xam ne war na laa woon barzaqu sëñ Abdou rek mu ne la jàllal ci sëñ Abdou sëñ Abdou jël si la di la teral di la teral ba nga yaakaar ne fa la teraanga yëpp mu ne la Alaaji Mansuur nga ne la ci wet noonu lañ lay paasante rek noonu lañ lay paasante ba yow mal xiyam taxaw doo yëg ne bés peñ ci taxaw na day mel ni tey lañu la deewoon tey lañ la suuloon ci bàmmeel doo yëg sax ne bés peñ ci taxaw na ndax yaa ngi ci mission yaa ngi ciy teraanga ñu di la awante te doo sonn mukk foofu coono amu fa mukk boo paree ci see xaaj Mansour mu ne laa sama rakk jaa nga fële de Seydi Abu Seydi Habib alaaji Habib a nga fële nga dem alaaji Habib gën leen a yegg ah la téye la ba nga foog ne fale yam mu ne la Sidi Ahmed ba woon ca Salonique barsax ma nga na le ah, te foofu sax dinaa ci taxaw soxna Roqaya Njaay sëñ Abdou Al Amin moo ma nettali fekk ma koy laaj ci Sidi Ahmed Salonique ñoom Ibrahima Faye bële ñoom ñoo nekk Grèce xam nañ Salonique ndax sorewut ak capital bi sore na tuuti rek waaye ñoom xam nañ ko yàlla def na ñoom wax naa leen ko fi maa leen doon defal seen conférence ñoom ñi ca Grèce yàlla def soxna Roqee Njaay bi Sidi Ahmed desee ci guerre ba daf ci amoon naqaru xol nee na fu mu toogee rek yëngal bopp bi ne Seydi Hadj Malick ay waay Sidi Ahmed xaw ma ci yenn condition la demee loolu rek ma métti xam nga yaay ak doom rek mm-hmm. man de dootuma ko gis lu dul ma fekki ko mu ne mu di ko naqarlu ay fan mu ne Seydi Hadji Malick ne ko Sidi Ahmed talut ngay wax mu ngi ci mission di ko dox mu ne ko ah si danga ma koy naxee rek mu ne ko bàyyil ma dalal sa xel dal di ne ko Sidi Ahmed mu ne ko labbee ko mu ne ko kaay nuyu sa yaay te waxtaan nag moom xelam dal Seydil Hadj Malick sëñ Abdou moo ko nettali ci gémmiñam mu ne soxna Roqee ne ko ah sama tukkulóor bi mën nga lii mu ne ko lu raw lii sax mën naa ko hmm, kenn du moom dafa bëgg njaboot waaw dafa bëgg njaboot fu dem yóbbaale géew ñépp loolu la ko yàlla sédd moom mënul kenn moom ñëpp la mënee hmm, bëggul individuel collective rek jeu collectif rek la bëgg waaye bëggul individuel yal nañu ko yàlla fayal keroog ma ko sëñ Abdou di nettali mu ngi ree ndeysaan ci ci mbaax ga di ree di ree ba dëngalu ne ma ah Chérif ma ne ko ah, mu ne Maodo kenn xamul lan la la ma ko waxee woon mu ma sëñ Babacar si nee na fii laa toog ne ko bàyyi mu ne am ah, mu ne ko bàyyil nëbbatu bi nëbbatu bi ëpp na mu ne ko si fu ma nëbbatoo maa ngi ne fànn ci jàkka ji ci ngénte yi ci dëj yi ci waaraate wi ci wasifa wi nga ne damay nëbbatu mu ne ko waxuma dara li la yàlla dënk wane ko mu ne ko ëpp naa def nañ bàyyi ba ëllëg boo lëgee fa la dàqee mu ne ko baabakar xanaa xamoon ne sama wilaaye gii laaluma ci dara dara dara te fasuma ci yéene laal dara ba wuyu ci sama borom te yàlla nangul na ma ko xamal na ma it ne duma ci laal dara mu ne ko ah si jaxaay di xëy di ji yëpp yëpp yëpp yëpp nag lu ko waral mu ne ko ah Babacar yow it cin boo ko dëppee lum tuuti tuuti cóola génn mu ne ko li nga digg ñuy wax rek cóola la la ca des ci cin la kenn laalu ko mu ne ko cóola nag mënta ñàkk ci cin <laughs> waaw cóola mënta ñàkk ci cin mu ne ko loolu rek la waaye du dara mu ne ko lii ma def it sa yaay laay dalalee xelam rek wan ko ne ko doomam a ngi ci jàmm ak salaam mu ne ko mu ngi dox ay mission Sidi Ahmed toog ak moom waxtaan ak moom ba doyal door a yeewee ko dem te loolu neex na dégg wax naa leen fii ne Thierno Bachir Muntaga Daha Cheikh Oumar baayam Daha ma baayam Thierno Muntaga def na ko yéeri pël bi ñëwoon ci moom jógee ci Seydi Hadj ne ko kam ka sam bëgg gis te baayam dee na ci ajak jak Cerno Muntaga Daaxa ñëw woo baayam mu ñëw toog mu nuyu ko mu ne ko yii kam ka mën nga bii mu ne ko mu ne ko suma maam <laughs> mu ne ko sa bàyyi bor bi mu yoroon moo ko tardeel sa waaye sa maam borom daraja la ca àllaaxira bu ñëwee fii àttanoo ko mu ne kon kam ka nañ ko bàyyi fekk daf ko ne sa bàyyi texewut dafa am ko mu yore loon juróomi dërëm fayu ko mu ne yéeri ne ko man maam lu dul jeeg sama bàyyi yor bor mu ne ko jox ma juróom yi ma fayal ko ñu bàyyi ko mu gékkati juróom jox ko mu ne góor gi woo baayam mu ñëw taxaw mu ne ko nuyul yéeri sa doom ne na ñu waxtaan ba mu mu ne ko kam ko bari nga doole Babacar waaw su maam nag mu ne ko sa maam fa mu nekk ci àllaaxira dafa bari doole de dafa am kàttan bu ñëwee àttanoo ko mu ne nañ ko bàyyi ci la jox boppam nag sëriñ Serigne Babacar Sey Thierno Mountaga Daha ci ndigalu Cheikhul Hadji Malick te Maodo ko yebal ci góor gi ki yebal nit fet na xam nga ne yow am nga ko boo xamoon exemple bi yaa ngi ñëw ci bitig bi di jënd crédit mu jeex bu la ne demal bitig yi bàyyi bàyyi bàyyi gallaay xam na ne bàyyi gallaay am na crédit mhm. Maodo nag crédit am jeexul da koy bañ a laal. mu gis koo xam ne day maye crédit mu ne ko demal ci moom mu may la crédit Thierno Mountaga daa da doon maye crédit mu ne ko demal mu may la crédit kooku jaayut crédit da koy maye waaw fa tabaarakallaahu mag ñi ñëpp a baax ñëpp a baax yal na ñu leen yàlla fayal te yàlla taas ci seen ñu nañu góorgóorlu rek ànd nekk benn rek boole xol yi muy benn di yëkkatee ndoo di tegandoo waaw àddina nag c'est très difficile nag àddina lu métti la. waaw lu metti la nag waaye du tee rek ñu muñ waaw du ñu muñ rek ñu muñ ñu gën a muñ ñu gën a muñ incha allahu yàlla baax na wallahu maa sabirin ah ndokk ba yàlla ne maa ngi ànd ak ñiy muñ inna allaha la yudiu ajral muhsinin beneen bi mu ne kuy rafetal bul yaakaar ne man yàlla fàtte naa ko de billaay duma fàtte kuy rafetal bés bu la fayee rek nga bég waaw payum yàlla nag léeg-léeg day yéex waaye bu yegsee dina couvrir loo xamutoon ak la nga xamoon waaw moo indil Maodo li mu am ak màggalug sëñ tuubaa gu rëy gii li ko may sëñ Touba mooy muñ ba ko tubaab bi yóbboo ba indi ko lam njëkk a wax mooy yàlla jéggal naa ñii ma doon tooñ ak képp ku mel ni ñoom sëñ Touba baax yàlla ñii ma def lii yóbbu woon ma juróom-ñaari at bëgg maa sànk mënuñu ko baal naa leen ak keneen ku topp seen tànk baal naa leen yàlla ne ko doom a gën feye ko lii mu am tey te lii tuuti la nga ci la ko yàlla dencal àllaaxira lii sëñ Tuubaa li ñuy gis nii mu am ko matul dagg-dagg ca la ko yàlla dencal ëllëg yowmal xiyaam ak i taalibeem nit ñi nañ bàyyi so soxor li takk jëm Touba kum takkoon jëm sa kër bàyyi ngay defar rang bi te naan yegg si leen iñaan rekk a fi ne ma ne li takk jëm Touba kum takkoon jëm sa kër bàyyi ngay defar rang bi te ne yegg si leen na rang bi jekk li takk jëm Tiwaawoon cene ba Njaasaan Laayeen Medina Gunaas Ñaseen kum takkoon jëm sa kër bàyyi incha allahu ngay defar sàppe rek te naan yegg si leen ñu ñaan mu mel ni la góor gi Abdourazaq waxoon magu pàppaay Abdoulatif Géey la ñaar moo ma ko nettali dafa niroo nag Serigne Abdou Cheikh El Hadj Aziz boo ñëwaan fekk ko ci pom bi boo yéexee boo xamul Serigne Abdou da nga naan Serigne Abdou la benn lañ ba ci bone kii dabaax bi ni mu koy solee yépp benn la am délégation ay naaru libanais yu fa ñëw doon indil góor gi àddiya foog ne góor gee toog ñu nuyoo mu jàmmasanteeg ñoom ba pare noonu la daan def ci kaf rek jàmmasanteeg ñoom ba pare ñu ne ko ah, góor gi dañ ñëwoon di ziar enveloppe baa ngi mu ne waaw marhaban jël enveloppe bi def ci poche bi ñu ne ko ah ñaanal mu ne déet duma ñaan góor gaa ngi ci biir <laughs> góor gi Abdou Razak Guèye mu ne ñu ne ko doo góor mu ne góor gaa ngi ci biir dem leen ñàkk ngeen de sëñ Abdou dégg muy wax mu génn si ñu mu ne ko ah ñu ne ko ah ñun dañ la jaawale na uh, góor gi jox nañ ko enveloppe bi de mu ne ah almaru ma man ahabba bàyyee leen ko ko moo ko moom man foo qawman fa huwa ku niru niru lu aw xeet bu yàggee nga nekk leen mooy man maay moom kon enveloppe bi moo ko moom ah sëñ Abdou du nit mu nettali ma nag mu ne mu ne ma dafa am geneen góor goo xam ne dafa niiru woon sëriñ baaba kër façon niiru boo xam ne mënoo leen tàqale wallahi sopp sopp dafa doy waar man gis naa ci koo xam ne fii ci Thiès du ma tudd turam dafa niru sëñ Baye Abdou daf ko niru niru ba léegi ni sëñ Baye Abdou di doxee xariti Cerno Cerno Jóob bii ñëw fii la de ba kii bi laafa bi ni muy doxee mag nga mi ni mu koy def yépp ni sëñ mbay dafa koppi sëñ mbay abdu ba mu jeex ndax sopp sëñ mbay abdu ba léegi dafa niroog sëñ mbay abdu nee na góor gi nag dem jolof doon seeti ay mbokkam wàcc ci fas wi rek ñu ne Seyd Aboubacar ñëw na eh waaye Xalifa Tiwaawan bi ñëw na sëñ Babacar ñëw na moom it dindiwu ko ñu jël ko dugal ko ci benn néeg bu mag néegu ñax bu mag dëkk bi kër kër kër kër kër sëñ Babacar ñëw na góor gi ne patt rek nit ñi yendoo rang di ziyaar yendoo rang di ziyaar ba tàkkusaan di waaj a jot mu ne benn géwél ñëw yem fa ne ku nekk fii ñu ne ko sëñ Babacar si mu ne bu waawoon ñu ne waaw mu rang nee na mu ràng rang rang rang ba yegg ko moo du diw nee na mu ne ko toogal fii toogal fii te di ma jottali nee na xacc ko rek bëf ko teg ko ci wetam nee na moom mu mu ne géwél bi it am xel ne defar leen ran bi na gën a jub sëriñ bu màgg ca yàllaa ni nii nee na gaay rang bi di gën di gudd rek nee na mu ne géwél bi léeg mu génn xool ndax ku mel ni ñoom newu fa ku leen war a xàmme nee na bu xool bu xoolee du gis du gis ku mu xam ne defar leen ndax sëriñ baa ngi waaj a sonn de day ñibbiwaat Tiwaawan nee na bay rang yëf yu bëgg ëpp loxo tàkkusaan jot ñu julli tàkkusaan ba jant bi di bëgg a ma ne ko saawaay yàlla suturaal nañu mu ne ma dey ko ne ko yàlla suturaal nañu de xaw yi suturaal nag nit a koy def boppam gannaaw yàlla suturaal nañu ba négé ni nañ tàggoo rek jaar ci bunt bi balaa ñu ko mel ni man nii ma la xamee mu xamee ñu ko suñ politique toj mu ne ko wax nga dëgg mu ne mu jékki-jékki rek tëj bunt bi mais leen sëriñ bi dafay noppalu nag dafay noppalu nee na ñu tëj bunt bi rek ñu jaare ba ca teg nee na utal si Tiwaawan nag ñu honnête lañ nee na biñ utal ñëwee ba jub sëñ baabakal si rek mu muuñ mu ne ñu ñëw ba jub ko benn asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam mbaa weerante leen fa seetal te waxaguñ mbaa weerante leen fa ñu ne ko déedéet mu ne alhamdulillahi rabbil alamin la ngeen doon wax yépp maa ngi koy dégg li ma doon metti rek mooy ngeen weerante woon fa waaye comme laa lante ngeen ba ñëw alhamdulilah yéenay Babacar Babacar ay yéen lew na leen doom lekk leen mu rees ak jàmm seetal li kilifa kilifa day mat kilifa waaye foo fekk iñ iñ iñ iñ iñ matul sax chef de wanag waxuma laa chef de quartier sama benn maam maam ku ma ku ma ndaama mboj moo ko xasee woon benn chef de quartier bu ne woon sookoon mu ñëw di laaj impôt mu ne ko diw du ma tudd turam jógal fii waa soo ko ne ko def ñoom ñi la def chef de quartier matoo sax chef de wanag <laughs> góor gi ba ni mu génn àddina bu ma gisee rek ni sa maam ko bon la xaw ma nu ma mën a waxee matoo matoo <laughs> góor gi keroog la gëj keroog la gëj a jëw ci kër ga di laaj impôt <laughs> ko da nga am mat chef de war na ko sax ñu naan chef de quartier yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla dolli sutura kilifa day yaatu yaatu dënn kilifa day yaatu dënn suñ kilifa yëpp dañ yaatu woon dënn nañ leen roy ngir yàlla nañ leen roy buñ bëggee ci yàlla dara nañ leen roy nañ yaatu dënn yàlla lim am xajul ci génn kër ni ko sëriñ Habib si bu sëriñ Mbay Mansour di waxee yàlla lim am xajul ci genn kër ku ko bëgg xajal ci genn kër yaa tooñ yàlla na mm-hmm. te tooñ jaami yàlla yi kon nag in uridu islaax in uridu illa al islaaha mastataatu ngeen baalati li ñuy wax wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkal